li jara rappeler d'abord mooy euh, lu wundu mission bi euh, démb lañu informé comme quoi que biir région de Kaolack rawatina biir commune Médina Sabax am na ay euh, jafe-jafe yu fi am ci éleveur mooy lan mooy que am na ay xar yu bari yu fi dee bi ñu déggee loolu nag dañu ne en tant que ñun ñooy ndaw tey ministère élevage yàlla natt ñu nekk ci position bi amooñu droit tey di nelaw wala di yendal sans pour autant dem gis loolu xam lan moo xew et qu'est-ce qui se passe moo tax euh, ñu woo gouverneur de région xamal ko ne war nañ fi ñëw tey pour seet loolu noonu def constat bi bi ñu ñëwee fii nag liñ fi fekk moom mooy ay éleveurs yu gëm yàlla macha allah parce que nag perte bi liñ fi ñàkk toll na ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti ñetti xar ci ñaari fan loolu euh, nombre bu bari la waaye terewul euh, yàlla def na tàggawuñ ak seen sago nekk nañu aussi nit ñu gëm yàlla loolu munuñ lu dut rafetlu ko euh, beneen bi aussi c'est juste xamal leen que ni li ñu indi fii mooy li président de la république di wax mooy que réew mi ñun ñëpp a ci yem ki nekk ci àll bi ci nekk ci biir ville bi ak foo mën di nekk citoyen sénégalais nga kon lépp loo xam ne réew mi da koy def war nga caa man di gis sa bopp mooy li ñu naan équité territoriale moo tax nag lépp loo xam ne euh, am na fi tey ci askan wi dañ ciy teewee président bokk na ci lim ñuy digal mooy lépp loo xam ne ne population bi soxla na ko fexe leen ci def lu ngeen man li ngeen mënul ngeen yegg fi mu war a yegg luñ ci mën def ci kon looloo tax tey ci tey ñu ñëw fi par rapport ak situation bi euh, beneen bi dolli aussi di rafetlu surtout euh, li ñu fi fekk mooy euh, taxawaayu autorité territoriales yi waaye surtout autorité administrative yi parce que lii nii bi mu amee gouverneur yónni na ay ndawam ñoom sous préfet ñoom préfet gendarmerie kenn ku ne ñëw na fi def nga fi li nga xam ne moom nga fi war a def def constant bi nga fi war a def li fi indi nag c'est simple parce que nag mbir su amee baax na nga am les tenants et les aboutissants nga def constat bi lañ ciy def suba ak luñ ci dul def suba dina jafe dina lot pour mën ko wax tout de suite parce que nag dañu naan sooy diggee na nga fekk li ngay diggee mu nekk sa poche wala nga denc nga denc ko sa valise comme que loolu nekku fi nag li ñu mën def mooy constater suñu constater dinañ ko yeggee fi mu war a yegg lépp loo xam ne état war na ko def pour accompagner population incha allahu taala dinañ ko ci jëm.